mais bu ñu traverser une période trouble mm -hmm. euh, Sénégalais yi dénoncer rejeter mhm. euh, l'implication des, des des proches du président euh, dans l'exécutif dans le système euh, étatique mm -hmm. est-ce que c'était pas votre responsabilité yéen ñii di ay mbokkam mhm. ngeen yombalal ko mbir mi vous auriez pu euh, faire carrière faire vos activités faire votre votre vie et vous auriez aussi évité pas mal de devoirs au, au, au président de la parce que président Euh, magistère am euh, sa cas kaaw euh, Mansour Faye bokk na affaiblir na ko lu baree bare la preuve que amuloo raison mooy comme ni ma la ko waxee Macky Sall option moo nekkoon éloigner la famille des affaires publiques man 2012 je rappelle que j'étais quand même haut fonctionnaire ministre conseil et chef du bureau économique donc euh, même bu Macky sal nekk loon président dama doon suivre rek une carrière normale. ça n'avait gêné personne à l'époque. waaw ouais, ça n'avait personne donc dama doon suivre carrière normale mais bëgg euh, ma éloigner affaire yi moo tax finalement ba woowuñ ma ci benn responsabilité donc daw coow boobu moo tax ma génn affaire publique dem ci affaire privée defe naa secteur économique yi ñaar rek la de public wala privé. kon daw coow bi tax ma bàyyi état bi nga xam haut fonctionnaire laa woon moo tax ma dem ci secteur privé bi mais coow li fa la ma dab donc c' est pas lié au fait que dañuy gérer les affaires publiques waaye xëy na société bi ak façon bi ñuy opposé au Sénégal depuis un certain temps moo jël forme boo xam ne dañuy personnaliser le débat politique su fekkoon ne dañ may reprocher par exemple bi ma nekkee directeur général caisse de dépôt wala li ma nekk maire Guédiawaye ne dama jël ci alalu réew mi wala dama doxal nu ma warul doxalee su boobaa war nañ ma mën a reprocher ne yaa ngi yàqal diw wala diw waaye bañ ko yàqal moo tax ma dem ci privé bi terewul coow li fa la fekk donc euh, c'est pas une bonne analyse que de considérer que famille am dañu waroon éloigner des affaires publiques de toutes les façons loolu bokkul sax suñu culture même si c'est pas les affaires de l'État dans toutes les affaires des gens les familles sont impliquées encore que man impliqué wu ma parce que je suis frère de Macky Sall j'ai fait la politique depuis quinze ou saison ans euh, c'est pas parce que Macky moo fi nekk ma am relation ak état euh, parce que fonctionnaire laa woon donc euh, nit ñi war nañ am tam ràññee léegi nag comme j'ai di comme dañu nekk ci jeu politique boo xam ne ñenn ñi li leen di li leen di arrangé moo ñu def attaque sous la ceinture nga nekk ci publique bi wala nga nekk ci privé bi yëpp dinañ la attaqué parce que boo nekkee ci privé bi tamit loo am rek dañ naan ah li mu jege nguur gi moo tax bu fekkee nag da nga nar a topp wax nit ñi ba doo def dara su boobaa euh, da ngay nekk quelqu'un d'inutile pour la société et d'inutile pour toi-même et ta famille et de toutes les façons man du maa moom choix bi président Macky moom moom choix bi éloignement des affaires publiques mais si c'était moi qui devais choisir j'aurais jamais choisi parce que c'est une passion te loolu moo tax ma def ay études pour pouvoir gérer les affaires publiques